Merksten, wie immer noch nicht. Guck mal da. borom bi wërsëgal ñu ñu am ndox moo xam ne ndox bu ñu mën a jëriñoo la ci wàllum naan ak yeneen yi nga xam ne doomu aadama soxla woon ci wàllu ndox kon loolee dañ koy sante borom bi tabaaraka wa taala ndax bu ko sooboon kat ñu nekk fii di gas ba ilaa macha allah te du ñu am benn pepp ndox kon ñu ngi sant yàlla di sant ak a ñaanal mbokk mi nga xam ni moom moo jël alalam financé teen bii euh, jaaral ko ci association sàkku yiw action pour l'espoir nga xam ne moo ko taxawu ba teen bi mën a agsi fii tey ba mën a sotti kon ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yàlla nangul leen seen yàlla yàlla jéggal leen seen i bàkkaar nangul leen seen jëf te wërsëgal leen wërsëg bu dagan te wuutaleen leen li nga xam ne moom la ñu dépensé yàlla na yàlla wuutaleen loo xam ne moom mooy lii remplacé loolee te fayee leen aljanna mu nekk seen dëkkuwaay bi xëyri xisaabin wala iqaab ñoo ngi leen di sant bu baax a baax ngeen xamal ne de nun da ngeen nu fekk ci jafe-jafe ju metti jafe-jafe bi ngeen nu fekk nun noo ko xam parce que boo seetee fii tey lu mat trois kilomètres quatre kilomètres ba cinq daañu ko doon wutee ndox daañu doon dem penku ñu wute ndox daañu doon jënd ndox ndax dangay doon dem ci dëkk boo xam ne bi yow amuloo fas amuloo dara ngoo ngoo jox nit téeméer wala juróomi benn téeméer na la duyal ndox indil la kooku duy ndox indil la nga fay ko li nga xam ne moom nga waroon dépassé yo te loolu yëpp eh, jàpp ngeen ci ba yàlla tabaar tabaarkàlla macha allah yàlla dindi na ko tey noo ngi duy fii noo ngi wugg fii noo ngi fi am sunu keewal ñii di jàpp fi ñii di sangu fii lépp ma tabaarakalla ndox mi ma tabaarakalla neex na weex na rafet na yëpp gis ngeen ko gis ngeen tey tabaarakalla nit yi ni ñu cay naane ni jur yi li ñu koy naane ni tabaarakalla neex na tabaarakalla nun kontaan nañu si bu baax a baax a baax a baax lii wax dëgg yàlla keewal bonkal bi bu ñu buggoon la waaw bu ñu buggoon dem fii ba lu ma trois kilomètres am na dëkk yoo xam ne tey amuñu ndox waa tey mbooy mi ni mu mel ni bu robinet coupé loo ci mun dara mais teen bi du coupé boo ñëwee rek nga am ndox kon teen bi mooy pare vérité bi moom mooy lu baax bi. doon def dañ doon dem sa eh, dëkk bi ñuy wax sa Ndiouna Ndiouna ak kër kër Baye Aaron Diouf ñeenti ñeenti kilomètre wala ñeenti voit là actuellement euh, dans le village de Gandjolfal, un village euh, se situant dans la région de Saint-Louis. Donc on est là ici pour faire euh, l'inauguration officielle du puits El Faki. Donc le puits El Faki a été réalisé par Sakuyo Action pour l'Espoir. Il a été financé par un jeune donateur. Donc puisse Allah subhanahu wa ta'ala le rétribuer de la meilleure des façons. Donc le puits a été réalisé dans un point où que dans un rayon de 4 km, il n'y a pas, d'eau. Donc, qui ont un village qui a soif, donc qui ont besoin d'eau. Avec la réalisation de ce puits, va diminuer la souffrance des populations. Et l'autre chose est que sur place aussi, on a su que on a atteint la nappe et on a aussi une eau qui est très agréable à la boisson. Donc, puisse Allah rétribuer le généreux donateur de la meilleure, façon, des façons. Euh, salam là.